durri wal balwa yàlla maa xarraka bi rabbikal karim waaye bi ngay jóge ci man doonoon doonoon doonoon akrama xalqin mhm. bi ngay jóge ci man doonu nit ku sell ku yiw ku mat ku mat yaakaar mhm. nit koo xam ni mën naa konte ci moom nit koo xam ni kii ba ma nee ba ma nee moom laa tànn mu doon sama xalifa ci kaw suuf mhm. sama sama entourage yépp dañ ma ni def nga erreur malaaka yi xas yàlla xas qaalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabixu bihamdika wa nuqaddisu lak qaala inni alamu ma la taalamuun la malaaka yi doon xas yàlla ni waaw nit maa garraka bi rabbika alkarim lan moo la trompé sa digganteeg sa boroom ba léegi su ma la xoolee dootuma xàmmee sa kanam ni kallaa bal tukazzibuuna biddiin léegi nag est-ce que nit kooku nga xam ni fowe na boppam ñàkk xam boppam fowe na teraanga bi ko yàlla defaloon ci kaw suuf moo xam muy géej gi moo xam muy jéeri ji moo xam muy xeetu teraanga bu nit mas am ci kaw suuf nit foowe na ko est-ce que kooku wëlbatiku na des na ba tey di mat di mériter la confiance divine bi ko yàlla joxoon que nit kawoon démb yàlla mënoon a compter ci moom est-ce que nit kooku ba tey yàllaa ngi mën a ci moom te suñu boroom subhaanahu wa taala wax ko wax bu leer ci alquran ni sama confiance nag kenn mënta muusa ko muccet ba ma ko ci loxoy koo xam ni kii xamul boppam du ci diine du ci politik tooñu ñàkk a xam sa bopp ci diine moo gën a grave ñàkk xam sa bopp wala ñàkk xam sa bopp ci diine moo gën a oyof moo gën a oyof ñàkk xam sa bopp ci politique ndax ñàkk xam sa bopp ci politique dafa doon tooñ goo xam ne gii dafay law day law ba daj penc mi kàpp wa ala asas moo tax ñu ne est-ce que jaadu na wala est-ce na maanaa nit ñi jël seen bopp raw ak buum takk ci seen baat jox ko ay nit yoo xam ni yii nit ñoo xam ne ñi bu teyee ñu wëlbati ñu wëlbati leen ñu tëdd nii bu subaa ñu wëlbati leen ñu tëdd nii te teguñu wëlbati googu dul ci seeni intérêt personnel ak ay faveur yoo xam ne ak ay privilèges yoo xam ne moo leen tax di yëngutu loolu moo tax philosophie islam yépp kenn ku ci nekk bind nga téere wax nga ak sa jamono ni leen moytu leen di jël ëllëgu pénc yi di ko teg ci loxo yi ñoo xam ni seen intérêt bopp moo leen tax a loolu euh, Abu Yusuf Yaqub Ibrahim al al al Ansari bind na ci lu nekk ci wàllu politik ci wàllu nan lañu ñu war a doxale penc ci wàllu kilifa gu nekk naka nga war a téye sa nguur ci kaw di waxtaan ak ñu ngi ko séqal ak teg sa nguur wala teg sa responsabilité ci kaw justice bu mat sëkk ak naka la naka nga war a jëflante ak waa pénc mi jëflante bu tegu ci maandu kilifa gu nekk ci philosophe yooyu jàngal nga sa waa pénc alalu askan wi naka lañ koy sàmme sàmm goo xam ne gii dina dëppoo ak ni ko suñu boroom subhaanahu wa taala tërale ibnul muqaffa bind na ci lu lu bari ci téeréem boobu ñu wax al adabul kabir abu muhammad bun qutayba ad daynuuri moom itam bind na ci lu bari ci téeréem boobu ñu wax uyunul axbaar abu qutayba ad yi

di wax ak kilifa gi téye woon pouvoir bi ci loxoom di ko dénk ni ko soo bëggee sa pouvoir am impact buy jariñ pénc nanga fexe ba bul topp kii muy sa bakket na nga fexe ba itam responsabilité yi nga xam ni moo ŋànk pénc mi bala nga cee yëkkati benn di ko dénk kenn na nga seet ka nga koy dénk ndax jikkoom attan na responsabilité bi nga koy dénk wala déet na nga seet itam ñi nga xam ne ñooy atte alxudaat attekat yi nga xam ne ñooy atte diggante pénc mi na nga fexe ba bala ngeen a dénk responsabilité atte na nga xool ba xam seen jikko attan na dii saa yu atte wala déet ndax yonent bi salaa sallam wax ne ko alxudaatu salaasatun isnaani fi nnaar wa waaxidun fi l nee na ju magistrat yi juge yi àtte nit ñi ñett lañu ñaar ñi ña nga ca jahannama nañ ci yàlla musal kenn rekk moo ci am place ci aljanna ñu ne ko loolu mooy lan mu ne ki nga xam ni kii day àtte teg ko ci bakkenam di joxe ay àtteem te bakken la ko teg kooku na xam ni nitu safara la ki nga xam ni kii day àtte te xamul dara ci li muy àtte ba pare dëgër bopp te ticc di àtte rekk di lor nit ñi kooku itam na xam ni nitu jahannama la ki nga xam ni ki ne day àtte xam na am na yitte xam àtte bi nan la ba pare am fit ak fullay wax àtte bi ni ko yoon tërale nee na kooku moom moo ci nitu aljanna moo tax bala nga dénkaane itam loolu nanga xool ki nga koy dénk kan la mu ne ko nanga bàyyi xel itam ci ñi nga yilif ñuy ànd ak yow di la jàppale ci liggéey nanga fexe ba koo gis ci moom jikko wor jikkoy wor na ko jëflante ak moom te dagg jikko jooja ca reen ba ndax garabu wor pénc mu mu màggee pénc ma kenn dootu fa féexul mu ne koy dem na nga fexe ba lépp luy doxal réew mi na tegu ci kaw transparence mu ni ko laa sultaana illa bi rijal wala rijala illa bi maal wala maala illa bi amaara wala amaara illa bi adlin wa xusni siyaasa mu ni ko xamal ni pouvoir mënta am su fa ay góor piir nekkul mu ne itam lu ñu nekk nekk nekk nekk ci pénc mi bu pénc mi jëkkuwul koom-koom moo xam ni dinañ ko dinañ ko mën a jëfandikoo pour doxal seen pouvoir pour doxal seen politique pour doxal réew mi nañu ko war a doxale bu fi koom-koom moomu nekkul pouvoir bu du am résultat mu ne koom-koom itam bala moo am dañ ko dundal suuxat ko yar ko mu ne waaye kenn mënta yar koom-koom suuxat ko dundal ko ci pénc moo xam ni justice amu fa defe naa ni loolu ko day nuur yi di wax boobaag léegi kenn xamul ñaata siècle la ku mel ni moom ñu mel ni moom wax nañ fi lu nekk ci diggante boobu Abu Bakar at-Tartushi moom itam wax na ko ci Sirajul Muluk wone na ci téereem boobu moom itam lan mooy daaneel état ak lan mooy dëgëral état wax na ko wone na ne état itam pour mu dëgër am cëslaay faw mu tegu ci xam-xam tegu ci jikko yu rafet tegu ci maandute tegu ci concertation Abu Hamid al Ghazali moom defe naa ni téereem boobu Ihya Ulumuddin ñépp dégg nañ ko waaye nag am na beneen téereem bu gën a bu ëpp solo sax mu ulumuddin ci wàllu siyaasa te muy sirrul alamin wa kashfi ma fi daarayn foofu itam la mu ca wax ci luy defar pénc ak kan moom mérité confiance su pénc mi la mu ca wax defe naa ni jar na di gëstu ngir di ko bàyyi xel ci sunu pénc yu demee nii ibnu taba taba moom itam ca alfaxri fi l aadabi sultaaniya wa duwal islaamiya moom itam bokk na ci xalaat yi nga xam ni benn walla yenn xalaat ëpp ko solo ci kan kan bu ñu demee bay tànn kuy jiite pénc mi yan jikko la ñu war a xool ci moom pour dénk ko suñu réew ak lan moo mën a téyeel koom-koom mi barke ba ñu mën koo jariñoo moom ibnu toba dem na ba ñuy jàngal ministre bi mooy kan ñu ne ko kan mooy ministre bi mu ne ministre bi mooy intermédiaire bi dox diggante diggante buur bi ak askan wi mu ni wala budda an yakuna min tabiihi chatrun yunaasibu tibaa al muluk wa chatrun yunaasibu tibaa al awaam li yanaala minhum al qubula wal mahabba mu ne kii dox diggante buur bi ak askan wi war na sàcc ci jikko buur bi sàcc itam ci jikko askan wi su mënee déggale soog a mën a déggale diggante buur bi ak askan wi moo tax moom ibnu taba taba ku am fulla la woon ci xalaat dañ ko dafa daan dégg ñu naan ñu naan ah yor réew daal moo ko yor sa kër benn la ku mën a yor sa kër mën ngaa yor sa mën ngaa yorum réew ibnu taba tabaani déedéet fa kam min aamiyin yuxsinu siyaasata li manzilihi wa laysa lahu quwatu quwa siyaasati al umuur al jisaam wa kam min malikin yuxsinu siyaasata mamlakatihi laa yuxsinu siyaasata manzilihi mu ni bari na ku mën a yor kër te buñ ko dénkee pénc mu yàq ko bari na bari na itam ku mën a yor pénc te mën la doxal dara biir këram loolu defe naa ni jamono wone na ko ibnu taymiya miin nañu xalaatam ci wàllu politique moom itam abdourahman ibnu xalduun miin nañu xalaatam ci wàllu politik ñu ni nag kon confiance divine boobu kan moo ko war a mën a mérité comme que ñun mën nañoo xool ñun ku ñu neex nii dénk nañ la sànnil nañ la suñuy carte comme ni ñu koy faral di waxe yow lañu ñu tànn ñun dañu naan yow lañu fal te yow la ñu fal wax bu yàqu la ndax bu ñu la falee da ngay jàpp ni buur nga te ba wolof tuddee responsabilité nguur ca la lépp yàqu bu ko defee ñu naan buur la mbeddum buur péncum buur mbaxanam buur ndawal buur lu nekk ñu tudde ko nguur bu ko defee ka nekk ca ka yore ka yore responsabilité boobu day daal jàpp ni buur la mais bu jàppoon ni surga la bu askan wi sant liggéey kon ñu mën a gën a am yaakaar ci doxalinam ñu ne comme que ñun dañuy tànn yàlla itam day tànn te tànnu yàlla nag moo gën a wér tànnu nit am na benn aaya bu nu jàngal suñu boroom subhanahu wa ba suñu boroom waxee ak Ibrahim ni ko indi jaa'iluka linnaasi imaaman dama la fas yéene def leader ci pénc mi nga jiite leen doxal qaala wa min gis nga doomu aadama xool Ibrahim ak mbaaxam ibrahim ak xelam ibrahim ak ragalam yàlla ibrahim ak ñoŋam seytaane nax ko yàlla ni ko dama la fas yéene def njiitu pénc mi mu ne ko dama bëgg nag sama boroom su ma sañoon su ma fi jógee itam sama njaboot continuer njiit loolu wa min yàlla ni ko yàlla ci fullaam yàlla ko am fulla la mm-hmm. yàlla ni ko déet nag doy nga ma mais ak sa sa njaboot ku mu ci man di doon bu amul yit tey doy ma ni nga ma doyee duma mën a compter ci moom ci wàllu responsabilité ndax ñaari wax ñaari wax la suñu borom yëkkati ci wàllu responsabilité ak confiance yàlla ni Ibrahim loo ma doy doy doy du tax ma doyloo sa njabootu bopp ndax ni yaa leen jur ñu dox tuuti Ibrahim ni yàlla d'accord waaye maa ngi lay ñaan ijal haza al balada aminan warzuq ahlahu min asamarat bañ njumte ba mu ba ko daloon ca waxtaan bu jëkk ba dalaat ko mm-hmm. mu ni yàlla maa ngi lay ñaan suñu dëkk bi nga xam ni amuñu lu dul moom mënuñoo toxu dem feneen ñoo ngi lay ñaan nga defal nga defal ñu ko dëkk bu am paix am sécurité am wërsëg ñoo ngi lay ñaan képp ko yeewoo ci dëkk bi nga dogalal ko nga assurel ko wërsëgam ba lu mu dunde du ko jaaxal fii yëg ñu ngi lay gëm xoolal mu bañ a juumaat mu ni yàlla maa ngi lay ñaan nga assurer sécurité ak dundin képp koo xam ne kii dina yeewoo ci dëkk bi te gëm la yàlla ni ko déet ak ñi ma gëmul di yàlla ni ko déet bu dee ci wàllu dund moom ak droits humains nee na ki ma gëm ki ma weddi laa ci yemale ñëpp laa koy assurer xam nga jikko boobu yàlla rek moo ko am bu dee ci wàllu droits humains ñi ma gëm ñi ma weddi ñëpp laa koy assuré mu ngi mel ni buur boo xam ne bi yaa yilif ñëpp te ay say alliés ak say opposants amoo ci xej ak seet te loolu lu jafe la léegi yaa jiite réew mi am nga opposition am nga ay ay alliés nga fexe ba ci sa maandute nga yemale nga yemale ñi ànd ak yow ci liggéey ak ñiy diingat sa liggéey moo tax Omar ibn Khattab daf ko daan def daf daan woo benn njabootam ni ko demal ci sama opposition bi nga laaj leen Omar ay kan nga laaj leen nu ñu gisee Omar te bul feeñ sax bu ñu xam ni sama kër nga jóge bu ñu la waxee Omar ni ñu ko gisee nga bind lépp indil ma bu ëllëgee mu yónni kay ni ko demal ci sama allié yi nga laajal ma nu ñu gisee Omar ñooñu itam bu ñu demee bu demee ñu tuuru wax ko seen xalaat ci Omar yépp mu bind indil ko bu ko defee Omar jàng xalaatu opposition bi ci moom jàng xalaatu allié yi ci moom loolu moo tax maandute gi ngeen di dégg ci Omar ibn Khattab loolu moo ko ko mayoon kon ñu gis ni alquran woon nañu ni tànnub yàlla ak confiance divine mboobu boobu bokkul ak partage du gâteau bokkul tànn yàlla deret du ko joxe yàlla bëgg na noppal ñépp ni ko Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si di waxee xafizahu llahu wa ayadahu wadaa yàlla bëgg naa noppal ñëpp moo tax jurul kenn kenn juru ko ndax bu na gën fekkoon yàlla am njaboot gu jóge ci geñoom kon ñëpp son kon bés bu ne nga gis ku la ni yàlla nuyu na la sama maam nuyu na la te su boobaa kenn du sañ a gàntal kenn ci ku la ni sama maam nuyu na la yàlla bëgg ñëpp noppalu ñëpp liibër mu ne lam yalid walam yuulat bés bu nit doxee ba ñëw ne leen yàllaa ma jur xam leen juruma ko bés bu nit doxee ba ñëw ne leen yàlla ñoo bokk maam xam leen ni waxul dëgg ndax nit nag àttan na lu nekk